Mm-hmm. n'est-ce pas bi mooy troisième fois. waaw avant tout day nuyu ñu fekk ñëpp ku ne sa tur sa sant quoi. billaay wala. Mm-hmm. mais tey njool décoration bi ñu lay décorer ban yëg-yëg nga ci am ak ñan nga ci delloo njukkal. ah kontaan rek. kontaan rek ndax chaque at moom bu fekkee yaa ngi bokk si si si nu mu si les meilleurs. Mm-hmm. dangay doole di santaat yàlla bu baax rek. waaw du sa njàmbaar nag. lépp yàlla la quoi. waaw. njool ci saison bi ñu lay décorer ñaata drapeau nga si jëloo. seize final laa def. seize final nga def. waaw jël onze drapeaux. ñàkk final cinq. waaw ñàkk cinq final. Hmm. waaw saison bi léegi ñu tijjiwaat waaw instant yi pare nañ. Ah. waaw. <laughs> deux millions cinq cent Jackson moo wote waaw loolu la gars yi wax de. Ah. waaw incha kon tout droit bi ah. waaw tout droit rek ba Iba Mar incha allah ñu tijji ji ñun ñëpp. Ah. waaw jot na. acca kon amul ragal. waaw amul ragal. jaajëf jaajëf mais sa supporter yi ak gars yi yëpp. waaw di nuyu ñëpp bàyyiwuma di sant ñu may jàppale bu baax a baax a baax ku si mel ni Paar mu Cissé xam nga ku si mel ni grand Babacar ak roon mi ma àndal nii xam nga ak gars yi ma bokkal entraînement yi maa leen di nuyu ñoom ñëpp di leen sant di leen gërëm waaw. atia tout droit. amul ragal yow jaajëf. Babou Dieye Brosse. mbir na siyaar nañ la. ah delloo naka yi day lépp jàmm. waaw naa is kay. naa affaire e? ah, rek. ah yàlla Mar Fafa ko Kër Massar. ah yàlla rek. raad ah feeñaagan wano ngol a uta Babou Dieye xaye boros o fog no pir ke na décorer el les meilleurs na saison fe o foog na ye décorer el xum yeg yeg jegoona kaaga non content rek mhm. waaw content a paax a paax i xeɗa yaaloxe te continuer waaw fogum c'est la première fois gara meen i teno waaw kontaan rek billaay wallaay jegim dabit koy kontaan na den o fop ñaanona den jam tamit waaw boroskum o layka supporter ke ten awa mor fa fo koy na ndamtan bo keke jegna a waago jeg ah, den o fop kontaan na den rek billaay comme ne laytooma ten rek jegim dabit den den o fop fa waaw mhm. kontaanam tigi a paax a paax tigi tigi na saison feke taxna o décorer el final podum jeg o <laughs> oui jegaam 18 18 final jang ten combien drapeau euh, presque les treize. treize drapeaux. cinq o ñak final. Ah. saison vendite ɓaatu et i mbaga cunga boros te fi ka ka dadna ke de fina fagun faak waaw tigi ah. mhm. a aca kon i ngid manga paax ok merci beaucoup tout droit jaajëf <laughs> ay ba sera moni sen Aïcha tout droit avec l'enfant du Jender Tony Junior lañ koy wax mbër siyaar nañ la siyaare waat bu baax di bëgg waat lépp jàmm ñu ngi sant ba di bëgg waat média bi ne fii yëpp di si <laughs> mbër yi nga xam ne dañ leen di décorer mais yow mooy meilleur ñu ëppale drapeau ci poids léger yi mais en même temps ñi nga xam ne équipe bi nga xam ne ñoo jëloon li nga xam ne moom mooy drapeau chef de l'état ban yëg-yëg nga am waaw di santaat yàlla bu baax di si kontaan bu baax baax parce que loolu moom neex na lool mais du doon fee man wala du doon fee doole yàlla moo doon dogale noonu daaw am na ñu fi newoon xam kon ren dooni la dañ koy sant yàlla bu baax a du suñ man man du suñ dara ndimbalam yàlla la rek mo ñu indi fi xam ba tax na amul dara lo xam ni parce que li ñu war prouver ëpp allah mën nga ñoo fàttali li tax ñu lay déggoo rek ñaata final nga am ñaata drapeau nga ak ñaata final nga si ñaata waaw ren ji def na final yu bëri euh, mais dama def dama doon yéeg kwa lourd ak poids léger mais lépp lépp lépp quoi wa def na final dus final laa def lépp lépp lépp jël si onze yi ñàkk benn mhm. looy wax waa axlu mu Sénégal ñi nga xam ne ñoo initié lii. waaw waaw di leen di di leen ñaaxaar rek. parce que lii moom dafa baax macha allah parce que day gën a yokk mbëri jom en plus mi day tax mbëri gën a xam li ñuy def xama parce que ku ren dewen di nga bëgg ñëw affaire yooyu di ñaan yàlla tamit ñu bëgg ñëw yàlla def dewen ñu am saison bu macha allah daal parce que lamb dafa metti xam rek nga nekk mbër di entraîner xamoo di financer si sa bopp te jëloo wala tamit nekkoo comme litéré ni leen di limee dafa metti daal yàlla xam na bu ma sa yoon mbër yëpp ñooy ñëw ñëpp ñooy tolloo ay drapeau billahi wallahi mais nag noonu la quoi nañ jàpp rek kenn bañ a ragal incha allah làmb la. ñun ñëpp wax supporters yeeg ñi si jàpp yëpp am nañ mën a am. waaw dañuy sant bu baax parce que ñun moom li may wax rek garance al maxtum fu ñu toog dañ koy wax ak Birane Ndiaye kër mbir fu ñu toog dañ koy wax parce que gis nañ seen taxawaay di sant tamit 100 pour cent bi ñoon Cheikh Baye Fall sama gars yi diaspora bi ñëpp daal képp koo xam ne yaa ngi diaspora di bëgg Tony ñu ngi lay siyaare baax rawatina waa Morog xam nga ñëpp ñu nekk fii tamit di leen siyaare waa Sénégal fan sa club yi gars yëpp ñu leen di siyaare gars yi nga xam ni dañ siy jàpp tamit xam nga mënuñoo lim fii ñëpp mais nañ xam ni ñu ngi sant ñëpp daal rawatina Cheikh Touba Siré Aïssa mhm. di ko siyaar bu baax di leen bégg baax la TV yéen it jaajëf merci beaucoup Lamine tout droit Lamine la fekkee la ci boole waaw fekkee ma ci boole laal yoon nag nee na décoré wuñ la mais yow tey suqu nga yow yaa gunge si gars yi waaw gis nga tooni laa gunge si ak gen euh, bari mhm. Mhm. looy wax gars yi bis bi tey waa axlu lamb Sénégal ñi nga xam ne ñoo initié lii di ko def di décorer mbër yi. waaw loolu de geste bu nice la tamit. Mhm. ñu koy rafetlu bu baax. waaw looloo gën a yokk tax tamit ñu teew si. Mhm. Ah. Lamine Petit Sélé mu ngi ñàkk rek daa mel ni yaa ngi si forme di waajal saison bi. non daaw décorer wuñ la mais ren da ngay fexe bokk ak ci heure bi doon nga bokk ci ñuy décorer fii. waaw noonu la yàlla baax na affaire dina ñëw. Mhm. ana Sélé mi la ràcca. sela mu ngi fi de mu ngi ci jàmm bu baax ana touba ko ta ñu ngi ci jàmm Moussa Faye mbëru Cap ñu ngi ci ju bëree bëri sax mbaa nak a si entraînement yi ah wa ñu ci kawam de waaw acca kon ñu bàyyi la jaajëfal nañ la wa ok merci tout droit tay jërë ngeen jëf rek ñu ngi ci li nga xam moy programme Axlam Sénégal journée bi nga xam ni lañu sargal mbëri waa jël premier a ngi nii ziaré nañ la délo ziar bu wër baa am jamm ma am jamm ba baax lepp taw fee sant bu baax ba sonno si yoon bi non sonuñ ci yoon bi nag macha allah hmm. waaw ñoo hmm. nañ ci jàmm quoi waaw tey jii ban yëg-yëg nga am ba alxulaam sénégal démarré ba tey yaa ñoom daaw bokkoo nga ni ma won déwén insha allahu rabbi damay bokk tey nga ñëw jël première ban yëg-yëg nga ci am waaye di si kontaan rek kontaan si bés bi bu baax a baax waaw xam nga waxoon naa ne daaw insha damay bokk am jom rek waaw tey jii nii nga jël première lan ngay wax lan ngay wax say supporter ak waa kii waaw di si kontaan bu baakha baax di kontaan ci wa keur Fodé waa Gandiaye bàyyi ma fenn ciow bi cupaan ngooj gàmbul di bëgg bëgg sama fan si club bu baakha baax fépp fan si kay bi radio bi jóge dal tay ma nglay beugé quoi bu baakha baax wa radio waaw lan nga def ba tay mu ñew forcé da daa taxaw première ak 14 drapeau ak ak équipe bi nga xam demonoon na len daal di jël li nga xam moy individuel yi way xam nga rajaxe xalé la waaw mom amagul mun mën naa la wax ne defaguma dara ci làmb liggéey rek ak respecté sa bop rek waaw mom moo waral li yëpp quoi tey dëgg it loolu am na solo tey jii Ahlou Lamb Sénégal ñëw nga ci ñëwati ci doo ci gan tey lan nga leen wax. waaye di bëggee rek di si kontaan si waa Ahlou Lamb Sénégal yëpp tamit di bëggee gi ma ganaa yëpp tamit ganaa président ñoom ñoom ambulance ak yéen ñi yéen ñëpp maa ngi di bëggee daal bu baax a baax waaw. saison bi tijji de. waaw tëj na saa yi moom takk ngemb bi rek moo des de. Hmm. waaw. mais gars dañoo bari si commentaire yi ñu ne Radiakhé nay wàcc bari tamit Dakar li muy ñëw dakaar day day day day daw léeg-léeg. non xaar leen ma ren incha hmm. ren lépp dina leer bu soobee yàlla. ñi doon wax yëpp loolu dinañ noppi ren hmm. waaw. kon bonne chance. incha allah jaajëf merci